ak El Hadj Ousseynou Ndiaye tax leen ak jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak l'observateur yéen kaay gi dañu xam ne jamono ji nag kàddu yi nga xam ne rek Ousmane Sonko yëkkati na ko dafay xam ne nag nguurug Sénégal dañu koo bëggoon a rey et moom Ousmane Sonko moo ko wax du samay kàddu yéen kaay gi duñu xam ne gannaaw jën ak taskati xibaar yi nga xam ne rek moom la doon amal ci la yëkkatee kàddu di xam ne nag nguurug Sénégal jamono ji fexeel ma la ñu bëgg ndaxte kay finne yi nga xam ne amoon na ci weeru mars maanaam daal fa na ko bëggoon a jaarloo bu fekkoon ne jàngu na faa jaar jamono ji fu ñu koy denc la ñu wax moom Ousmane Sonko ci yéen kaay gi duñu xamal jamono ji nag loolee mënuñu ko nangu moom Ousmane Sonko nag jën ak taskati xibaar yi nga xam ne rek moom la doon amal yëkkati di jëmale ci sartu ak di def yëf yéene gi duñu xam ne moom kay dafay xam ne ne jamono ji nag googal ak sart duñu taxaw naan dañu koy signé bu fekkee ne dañoo bëgg dal suñu kaw ñu ne cell ñun kay la ñu munta di ay defkatu ñaawteef di ko fu nag di dal suñu kaw ñu moom Sonko Sonko bi di xam ne loolee duñu ko nangu réew mi yéene duñu xamal ne moom Ousmane Sonko kay gàntal na googal ak sart ju jëm ci wàllu ko gàgg yu ni mel yéene kaay gi duñu xamal eh, jamono ji nag eh, réew mi moo jaxasoo Sud Quotidien ko fi yéene kaay gi di xamle lan moo tax nag njiitu réew mi gannaaw nag ba mu dindee poste premier ministre ba mu set ne it nag tey ji da cay delluwaat enquête yéene kaay duñu xamal

teew daal daje gi nga xam ne rek doo ko doon na ko amal ak ay jëwriñam danañu amal lu jëm ci procédure d'urgence ngir loolee gën a mën a jàpp l'observateur yoo xam ne dañu na ko génne foofe foofee fekk jamono jooje yéenekaay gi duñu xamal ne ki nga xam ne rek moom moo di Kabiru Mbodj mi fi jiitoon wari jamono ji nag yoon daan na ko juróom benn weeri kaso yoo xam ne da koy tëdd ak juróom milliards yoo xam ne da koy fay fekk jamono jooje la enquête yéene El Hadji Ousseynou Ndiaye ak El Hadji Ousseynou